sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1859 ci dëkk bu ñuy wax nja nja mi ngi ci suuf si di mbàkke bawal soriwul dara dëkk bii di xuru mbàkke sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke doomu soxna ndumbe ñang la ak ku ñuy wax sëriñ Seydou Mbacke sëriñ Seydou Mbacke muy waajuru sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbacke mbokkum sëriñ Touba Seexul Xaddiim la ñoo bokk menn maam mi di maam maaram ndax soo demee ci marsiya bi Cheikh Moussa di way kii di sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbacke ma ngi koy wax ne yaa ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim da yéen a bokk lépp moo xam ci côté waajur wu góor wala ci côté waajur wu jigéen ndax soo jëlee kii di sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbacke da ngay jël ku ñuy wax sëriñ Seydou Mbacke boo jëlee sëriñ Seydou Mbacke da ngay jël sëriñ Sayer Soxna Buso soxna busoo maam maaram moo ko meññe nga jël sëriñ tuuba seexul xaddiim wax ne maam moor anta sali mbàkke mooy waajuram maam moor anta sali mbàkke maam balla mooy waajuram maam balla maam maaram mooy waajuram kon sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke noonu la bokkeek sëriñ tuuba seexul xaddiim ci wàllu waajur wu góor soo demee ci wàllu waajur wu jigéen wi da ngay wax sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke soxna ndumbe ñang mooy waajuram soxna ndumbe ñang ku ñuy wax sëriñ baara ñang mooy waajuram sëriñ baara ñang ku ñuy wax daan na tubaa seexul xaddiim ne sëriñ tubaa seexul xaddiim soxna jaaratullaahi mooy waajuram soxna jaaratullaahi maam asta waalo mbàkke mooy waajuram maam asta waalo mbàkke soxna ndumbe ñang mooy waajuram soxna ndumbe ñang ku ñuy wax daan na ñang mooy ku ko meññi ñoom ñaar noonu lañ dajee ci daan na ñang ak kii di maam maaram kon mbokk la ci wet gu ne moom sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke digganteem ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim te teewul nag dafa fob lépp jaayantee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim nekk ab liggéeykatam bu ràññeeku ci yoon wi sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke am na ñu mbokkal nekkal soxna ndumbe ñang ñu ràññee ci taawu soxna ndumbe ñang ba di sëriñ ibrahima ndumbe ñang ak ku ñuy wax soxna xari mbàkke ndumbe ñang soxna xari mbàkke ndumbe ñang mi ak kii di sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke ñoom ñaar nag ay seex lañ kon ñoom ñaar ñoo feeñandoo jamono ci jëmm ji di soxna ndumbe ñang sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke ñaar la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñett kenn ki moom mooy magam di sëriñ ibrahima ndumbe ñang ki ci des di soxna xari mbàkke ndumbe ñang ñoom ñaar ay seex lañ bi 1959 ba mata dal lii di alxuraanul karim dafa tombe woon nag waajuram woon nag màbba jaxu te woon ab xeex ci dëkk boobu di somm ci suuf soos du ñooro waajuru sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke di sëriñ seydu mbàkke wuy ji woon na màbba jaxu ci xeex boobu bi mu wuyjee ci xeex boobu nag foofu nag la sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke mi matee dal lii di alxuraanul karim ñu dalal ko alxuraanul karim ci dëkk boobu di poroxaan moom sëriñ seydu mbàkke mi waajuru sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk boobu di poroxaan sëriñ seydu mbàkke moom itam di waajuru sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke fukki kilifa ak benn yi desoon ci xeex boobu di xeexu màbba bi moom itam ci la bokkoon kon mi ngi ci dëkk boobu di poroxaan ñu denc sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke ginnaaw bu waajuram wow desee ci xeex boobu di xeexu màbba jaxu bi lañ fab jëmm jooju di sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke nag jébbal ko Mamor Anta Sali Mbàkke ci poroxaan ngir mu wéyal am njàngam ginnaaw bu Mamor Anta Sali Mbàkke jógee nag ci dëkk boobu di poroxaan ñëwoon nag ci dëkk bii di paataar yoroon na kii di sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke ngir wéyal am njàngam ci dëkk boobu boobu di paataar nag sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mujj gi moo yoroon daara ji tàmbali faa jàngale sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke wéel na am njàngam ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba ci dëkk bii di Mbàkke Kajoor bi ñëwee Mbàkke Kajoor nag ginnaaw bi la Mamor Anta Sali Mbàkke génn lii di àdduna sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim doonn lii di daara ja booba sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke mi ngi ci loxoy sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di wéel am njàngam sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo ko ko yar bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim wootee lii di yoonu murit sëriñ Ahmadu barki sëriñ tubaa seexul xaddim ci mbàkke kajoor fépp fu sëriñ tubaa seexul xaddim nekk nag moo xam mbàkke kajoor mbàkke bawal daaru ba ci tuubaa kii di sëriñ axmadu ndumbe mbàkke mi ngi ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ndax léppi sëriñ axmadu ndumbe mbàkke kat sëriñ tubaa seexul xaddim la bi sëriñ tubaa seexul xaddim goree dëkk bu sell bii di tuubaa ba taxawaloon fi ñeenti daara yi muy daara sëriñ ndaam abdurahmaan loo daaray maam cheikh ibrahima fall lamp daaray sëriñ ibrahima saar njaañ ak daaray sëriñ masamba jóob saam sëriñ axmadu ndumbe mbàkke Mbàkke mi ngi woon ci daaray sëriñ ndaam abdourahmaan loo mooy fi ñu tudde ngélamu ci ndaamaatu ginnaaw bu sëriñ ndaam abdourahmaan loo jotee ngërëmam ci atum 1890 jàpp 1891 sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke mi moo wuutu sëriñ ndaam abdourahmaan loo ca daara ja wéendi yorandi daara ja laataa sëriñ tubaa seexul xaddim di dem ci géej gi nag ci atum 1895 sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke jot na ngërëmam kon génération bi mu àndaloon jébbalu moom mu leen mujj yeeweeku ci daara ji ndax bi sëriñ sëriñ ndaam abdurahmaan loo yeewi koo ci daara ji moom lañ jébbal daara ja mu nekk jëwriñ ja ginnaaw bu mu jotee ngërëm ci atum 1895 ab diir lañ ci teg sëriñ tubaa seexul xaddim am fi takk-takk tubaab bi ñu yóbbu ko ci réew mii nag di gabon keroog bi sëriñ tubaa seexul xadim di dem gabon ndénkaane bi mu defoon ginnaaw bu mu nee lépp lu waaye jaaxle wala looy laaj dama laaj ko maam ceerno ibrahima faati mbàkke ci yoon wi képp kuy jàng demal ci loxo loxoy sëriñ ndaam abdurahmaan lo képp koo xam ne nag da ngay liggéey wala ngay tarbiyew demal seeti sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke sëriñ tubaa seexul xadim daa di woolu kii di sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke ba mu ñëw mu di ko xamal ne kii di sëriñ ndaam abdurahmaan lo di lépp lu ci war ci ab dund yow laa ko sas njaboot gi Ceerno Ibrahima Faty itam seenu dund yow laa ko sas kon loolu moo waraloon sëriñ Mandumbe Mbàkke nag nekkoon baykat bu ràññeeku ci biir réew mi ndax kat bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di dem ci géej gi képp ku war a dund ci njaboot gi ci loxoy sëriñ Mandumbe la ko tegoon sëriñ Mandumbe Mbàkke nag moo yoroon dund bi ci diirub li sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim dem ci géej gi moo tax bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di dem ci géej gi ab lettre nag la bind jébbal ko jëmm jooju di sëriñ Mandumbe Mbàkke di ko wax ne na féete ci wàllu mbay mi lettre boobu mu bindoon jox ko sëriñ Mandumbe Mbàkke ngir di ko wax ne na féete ci wàllu mbay mbay mi Cheikh Moussa Ka sax mi ngi koy tudd ci marché bi mu defal sëriñ Mandoumbe Mbacke ginnaaw bu mu fi bàyyi ko ñu teewlu ko Bàmbaa ko jox mbindum loxoom ne ko sasal ma say moroom jëwriñ nga tool bi yaa ko moom jihaari baykat metti na jëwriñ jooju ko sëriñ Touba Seexul Xadim defoon ci yoon wi képp kuy sëtub sëriñ Mandoumbe nag war ngaa roy ci loolu soo dee góor waaw góor lañ lay wax soo dee jigéen waaw kumba kon jërëjëf sëriñ Ahmadou Ndoumbe Mbacke ci atum 1895 nag la sëriñ Touba Seexul Xadim dem ci géej gi ay weer nag lañ ci teg sëriñ Ahmadou Ndoumbe Mbacke dem ci dëkk bii de Kër ma Maguéy Ndaw taxawal fa nag daara jëm njëkk am foofu sax la toogoon di bay ba ni Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim jógee ci géej gi ci dëkk boobu di Kër Maguéy Ndaw foofu itam la nekkoon di wéyal ndigalul Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim muy di bay di yit lii di njaboot gi foofa itam am na yenn ci mag ñi toppoon Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñu fa nekkoon ak moom di tarbiya ñu ràññee ci ku ñuy wax Sëriñ Muhammadu Jigal Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim moo ko defar moo ko seexal Sëriñ Muhammadu Jigal mii sax Sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke moo ko gërëm mu ñibbi bi matee am ngërëm bi Sëriñ Tuubaa seexul xadim ñibbisee la wéyal ngërëmul sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke ba doo ko toftal mbooloo ci ginnaawam ku ñuy wax sëriñ daawuda jóob jat mi itam ci loxoy sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke la nekkoon ba bi sëriñ tuubaa seexul xadim jógee ci géej gi ba gërëm kii di sëriñ daawuda jóob kerow sa sëriñ daawuda jóob ginnaaw bu mu jotee ngërëmam dafa delluwaat ci kër ma géey ndaw ci loxoy sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke sëriñ tuubaa seexul xadim woolu ko ba mu ñëw di ko wax ne na jóge kër ma géey ndaw dellu nag ci dëkkub cosaanam boobu di xarañ jóob ndax kat lim doon sàkku ci sëriñ moom am na ko kon jërëtut muy def dara ci dëkk boobu di kër ma géey ndaw kon sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke bari na sax ci mag ñi ñoo xam ne nii laata sëriñ Tuuba Seexul Xadim di def ci ñoom dara moom def na ci ñoom dara ba noppi ci atum 1896 ba atum 1904 mu ngi ci dëkk boobu di kër ma géey ndaw foofu itam la xaar sëriñ Tuuba Seexul Xadim ba mu jóge ci géej gi foofu la jóge ñëw ziyaare si ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadim ginnaaw bu mu ziyaaree ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadim ba pare dafa delluwaat ci daara jooju mu sancoon kër ma géey ndaw wéyal fa lii di ndigalam sëriñ Tuuba Touba Seexul Xaddim jaar fi Sànnoosi woor a fa weeru koor wa jóge Sànnoosi jaar fi mu jaar ñaxal ñeng jaw Mbàkke Kajoor ba nim ñëwee Daaru Salaam bi Sëriñ Touba Seexul Xaddim ñëwee Daaru Salaam am fi ay fan jóge fi dem Daaru Marnaan ci Maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal Daaru Daaru Marnaan googu na ginnaaw bu fi Sëriñ Touba Seexul Xaddim defee lu tolloog ñaari weer jàpp ñetti weer kërug Daaru Marnaan gi takkoon na ba jeex tàkk Sëriñ Touba Seexul Xaddim jóge Daaru Marnaan ñëw Daaru Salaam ndaam sancaat fi dëkk mooy fi njabootu mbàkke gi nekkee sëriñ Amsatu Jaxate moo nekkoon bëkk néegu kër googu sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke la sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim waxoon mu yeesalaat kërug daaru marnaan gi moo tax soo demee ci xasida gii di jësaawu sàkkoor bi seex Musaa Ka di way mi ngi wax ne fukki néeg ak ñaar la fa defoon boole koog nag wutoon ay gaayam yoo xam ne guddi gu ñu fanaanee sikkar sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim maam Cheikh Anta Mbàkke ak kii di maam Cheikh Ibrahima Fall la wutloo woon lal ya ginnaaw bu mu defarloo néeg ya kii di sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke ginnaaw googu te sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke yeesalaat kër ga maam cheikh ibrahima fall ak maam cheikh anta mbàkke sëriñ tuuba seexul xaddim loo leen lal ya lal ya keroog bañ koy wuti ndar géej ba di ko indi ci dëkk bi di daaru marnaan ci diggante boobu nag lañ wàcce woon sëf yi ci dëkk bu ñuy wax ngongo ngongo am na pëlub agent secret bu fa nekkoon bu ñu doon wax demba ngari moom tim ginnaaw bu mu ñëwee wéq saaku yooyu yëg ne daal ci ay weñ la te tànkam mu def directement nag chef de canton bi ko doon liggéey di mbaaxaan ngir wax ne ko ngàndaay te jihaad lay waajaaj mbaaxaan téeyut laaju li tém toppatawul enquête bi ni mu waree ba yóbbuwaat dossier bi fi gën a kawe ci moom muy gouverneur bi kon li yóbbuwaat sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ci réew mii di gànnaar ci histoire boobu la jóge muy ginnaaw bu kërug daaru marnaan gi lakkee tam yeesalloo ko sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke mu defaraat kër gi maam Cheikh Ibrahima ak maam Cheikh la doon wutloo ay lal ngir ñu def ko ci kër gi lal yooyee nag moo jur coow li yóbbuwaat sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ci réew mii di gànnaar jaarale ko ci dem ngari mu dem ca mbaax mbaaxaan mbaaxaan teeyut yóbbu dossier bi ci fi gën a kawe muy gouverneur bi sëriñ tubaa seexul xaddim mujj na dem gànnaar ci coow loolu ci atum 1903 ginnaaw bu mu demee gànnaar na kii di sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke fekk si woon na ko gànnaar ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ndax dafa amoon bis seex siidiyal muxtaar bu gànnaar soxla woon ab junni ci réew moomu di gànnaar junni boobu wër nañ ko ci gànnaar fépp mënuñu ko am ginnaaw bi nag la sëriñ tubaa seexul xaddim bindoon lettre kii di sëriñ ibrahima saar njaañ cheikh ibrahima fall ak kii di sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke di leen wax ne nañ toppatoo ab junni yónneeku ko wala na kenn ku ne wutub junni yónneeku ko bu fekkee ne ñoom ñett nag ci yoon wi mën nañoo ñëwandoo xayrun bu fekkee ne mënuñoo ñëwandoo nag nañ ko jox kenn ci ñoom ñett ñooñu ñu indi ko waaye ñoom ñett ñooñu ñu mujj àndandoo ca yoon wa ca yoon woowee sax sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ sëriñ Tubaa Seexul Xaddim joxoot na ko ci këll ngir di ko wax ne jël ko di ko ci barkeeloo këll boobu mi ngi ci loxoy njabootu Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ dem na gànnaar ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddim ci ab junni bu mu ko doon laaj mook mam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ ak moom sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke ginnaaw gànnaar itam tooguñu fa dañoo daal di ñibbi si waat ginnaaw bu mu jógee gànnaar moom sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke daa wéel nag lii di ab sancam ginnaaw daara jooju mu taxawaloon ci atum 1896 ci dëkk boobu di Kër Magey Ndaw ci atum 1904 nag ginnaaw bu mu jógee gànnaar la taxawal nag dëkk bi mu njëkk a sanc ci la foobe turu dëkk boobu nag tudde ko xabbaan xabbaan googu fukki at yàlla la fa def moom sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke ginnaaw 1914 sanc na dëkk bu ñuy wax xujjal xujjal mi ngi ci booy dugg njaareem ginnaaw xujjal ci atum 1914 dëkk boobu moom yàggu fa dara ndax dafa xawoon a xat ci wàllum mbay ci atum 1915 mu sanc dëkk bu ñuy wax mbampana juróom-ñaari atitim la def ci dëkk boobu di mbampana ci atum 1923 sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke sancaat na dëkk bu ñuy wax saam ñaari at la fa def ci atum 1925 nag la sanc daara ji gën a rëy ci ak sancam muy fi mu tudde déndéey kon déndéey du woon ab dëkk waaye ay daara dara la ko sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke defoon daa fa bay daa fa liggéey ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag la ko njaboot gi def ab dëkk waaye ci nekkinu sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke déndéey ay daara la woon déndéey googu itam foofu la génnee àdduna ci atum 1933 déndéey ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag la doomam ji di sëriñ Moodu Xabbaan fab daara ja def ko lii di ab dëkk kon sëriñ Moodu Xabbaan moo ko def dëkk waaye bi fi Cheikh Ma Ndumbe nekk daara la woon dëkk yooyu mu sanc nag ak daara yooyu nekkiwu fa woon dara nag lu dul lépp lu ñor mu yit ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kon nekk nag ab ab liggéeykatam nekk itam taalibe bu nangoo nangu ci yoon wi moom sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke ba tax na lu baree baree bari liggéeyal na ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ndax soo demee ci mbindum sëriñ Mouhamadou Diop Dagana mi ngi wax ne kii di sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke di ku ko jaaxal la woon ndax ni mu taxoo woon ak sëriñ bi ëpp na ba tax na gànnaar sax sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke yoonu tool la ko defoon ngir taxoogum taxoo na ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim saa su a nga cay dem ak a ñëw te sëriñ bi itam liggéeyaloo na ko lu baree baree bari ci gànnaar Dakar googu ñu teewlu kàddu yi sëriñ Mouhamadou Diop Dagana seede ci jëmm jooju di sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke ci nim taqoo woon ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim inna rajula am ammi shayxi wa qarinihi qabla ilmi ahadihi baaca nafsahu lillahi wa tajarrada li xidmati shayxi faridan kaabada al ahwaala waqtaxama al mashaaqa wa garraba wa sharraqa wa yaxdimu laylahu wa nahaarahu wa yabsulu qalilahu wa kasiirahu wa mimma shaaca bayna annaasi bittifaaqin annahu awwalu man ahda cheikha alfan mujtamian qabla an yasxabahu shaxsun bi xiyalihi wa madaaxilihi wa kaana acheikhu yursiluhu li ardi albayaadin yastaktibuhu kutuban min gayri an yabsula lahu samanan bal yukallifuhu ala nafsihi fa yati biha kama yuhibbu hada gayra ma marratin falamma gaaba alcheikhu algaybata albaxriya aljanubiya wa xallafa axaahu cheikh ibrahima fati fi abnaihi wa ciyaalihi qaama lahu hada almuridu ridan wa ay ridin fa kaana laa yaddaxiru an ciyaali cheikhi cheyan raayan li ahdi cheikhi xiina taxayara kacirun min annaasi wa nxarafa albaadu fa lamma qadima cheikhu min albaxri taxazama xizaama almubtadi sadiqi alxarisi ala nayli muraadihi alaziz alladi taala mastaaqa ilayhi xata caayanahu wa sharaca yaxdimu ka an lam yaxdim qattu fa lamma gaaba cheikhu ila ardi albayaadin ittaxasa tariqu maskanan laa yakaadu yufaariquhu bi nafsihi wa rusulihi wa maalihi taqoo googu mu taqoo woon nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim taxoon na itam kii di sëriñ tubaa seexul xaddim nekkoon ku ko wóolu ndax ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xaddim nekkee ci njaareem ba sëriñ tubaa seexul xaddim wax ne nañ taxawu lii di jumaay njaareem ji sëriñ mandumbe mbàkke la dénkoon bépp addiye bu jóge ci mbokki boppam di mbàkke mbàkke yi sëriñ mandumbe mbàkke mooy ki koy denc kon responsabilité bu mat sëkk la ko joxoon ci jumaay njaareem ji ba tey ci jëfi sëriñ mandumbe mbàkke jumaay njaareem jooju biñ koy liggéey ci atu 1917 ba ci atu 1925 ndumbe mbàkke warlonte woon naag jumaa ji at mu jot téeméeri junni lay joxe ci sasu boppam wuuteeg lool nag sas si ñuy laaj muy addiyey boppam téeméeri junni la ci warlante woon Cheikh Moussa Ka mu ngi ko cay tagg ci téeméeri junni yooyu mu sasoo woon ci jumaay njaaréem ji boole ko nag di ko wax ne Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim yaay ki ko njëkk jox ab junni ñu teewlu way yooyu ko Cheikh Moussa Ka way tam nekk ci marché bi mu defal Cheikh mu ndumbe mbàkke jumaa ja ngir bañuy sasoo téeméeri junni la sasoo te mus yàq lam fasoo moo njëkk a fab junniy dërëm booleeg wurus wuñ naa ngalam teg ci loxol bamba magam mësula sàkkul àdduna dëkk bu sell bii di Touba sëriñ Mandoumbe Mbàkke mooy ki fi njëkk tabax ab bâtiment bu ciment dem ndax dafa am bés ci njaareem sëriñ Touba Seexul Xaddiim woolu woon ko di ko wax ne Ahmadu Ndumbe sama dëkk boobu di Touba de laa bëgg nga dem tabaxal ma fa wala laa bëgg nga dem defal ma fa am néeg sëriñ Touba Seexul Xaddiim mu ngi doon wax keroog sëriñ Mandoumbe Mbàkke néeg ba ma soxla ci sama dëkk bu sell boobu di Touba de bu ko ndox mënal dara kon misaal bi mooy dana mucc lii di xumaak bu ko sawara mënal dara kon moom dana mucc ci lii di ak lakk bu ko suuf mënal dara kon dana mucc ci lii lii di max sëriñ man ndumbe mbàkke nag ci la xamee ne kon sëriñ tubaa seexul xaddim waxul ab baraak ndax bu doonee ab ko ko sawara mënal dara comme wax na ko ko kon du néegum ñax ndax kon su boobaa sawara dana ko mënal dara te it bu ko suuf mënal dara kon du néegub sàkket ndax kon su boobaa max ji kat dana ko mënal dara ci la sëriñ ma ndumbe xam ne nag kon ciment la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di wax mu ñëw tabaxal ko kër goo xam ne nii këruk alxuraan la woon muy ay xasida ak yenn ci bagage yi sëriñ tubaa seexul xaddim lañ fa doon denc mooy fi ñu tuddee école daaru xuddu gauche bi mooy école bi jàkkaarloog sàq mi kon sëñ Mandumbe Mbàkke mooy ki ko tabax ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci lool nag la sax toppit nag ci ginnaaw sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ba ni sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim génnee àdduna ci atu 1927 ci fukki fan yaa juróom ñeent ci mois de juillet mu fab léppam nag moom sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke yébbal Seex Mamadul Moustapha Mbàkke mi nekkoon taawub Xaadim Rasuul di ko xoolee Xaadim Rasuul doon doxaleeg Seex Mamadou Moustapha nam doon doxaleeg Xaadim Rasuul wala sax nu ko raw ba tax na boo delloo ci mbindum Modou Diop Dagana ma ngay wax ne de sëriñ Mandoumbe Mbàkke ni mu toppe woon Cheikh Modou Moustapha Mbàkke ëpp na ndax kat bi sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim génnee lii di àdduna moom sëriñ Mandoumbe Mbàkke nekku fa sax di insisté wala di xalaat ak defi yëpp dafa fob léppam rek jébbal Cheikh Modou Moustapha Mbàkke bokk na itam ci ñi njëkk a jaayanteeg Cheikh Modou Moustapha Mbàkke boole koog nag di ko taxawu guddeeg bëccëg ñu teewlu mbind mi ci sëriñ Mouhamadou Diop Dagana bind ngir di seede ni sëriñ Mandoumbe Mbàkke jaayanteeg Cheikh Modou Moustapha Mbàkke te amul lamma naama cheikhu wa qaamat qiyaamatu ahli dunya falam yabqa illa mutaraddidun fi amrihi aw shaakun wa dacufa yaqiinu lmuuqinina talaqa almihnata bi qalbin jariin wa baayaca alxalifata awala wahlatin mubaayacata almubtadi alladi lam yaxdum qat falam yara li nafsihi lima taqaddama martabatan martabatan ma bal xalafa ala annahu yaxdimu alxalifata bi adcaafi ma kaana yaxdimu waalidahu fa barra fi xilfihi fala yabqi cheyan li ciyaalihi min zarcihi wa fiddatihi bal yabsulu kulla lil xalifati wa huwa fi lxaqiqati aktharu lkubarai itinaan bilxalifati wa bi iyaali cheikh ginnaaw jaayante googu mu jaayanteeg cheikh Modou Moustapha Mbacke amul benn xiili xaala te ñu àndoon ak Serigne Touba Cheikhul Khadim seede ko bi cheikh Modou Moustapha Mbacke di gas lii di raay bi mbooloo mu baree baree la Serigne Ahmadou Ndumbe Mbacke joxe boole koog fop alalam di ci def bi ñuy fondement lii di jumaay Touba ji Serigne ma Ndumbe Mbacke setterne yiñ doon denc lii di ndoxu mi moom mooy ki ko wutoon ndax kat xam ngeen na booba Touba amagul lii di ay forage teen itam jafe woon na lool ngir ñuy jukki lu jumaa ji soxla ci wàllu ndox kon mag ñi benn pexe rek lañ tëraloon mooy bu nawet jotee ñu fob déegi di ci root di sotti ci fenn fuñ ko mën a denc ngir bu noor bee nag ñu manitim bu jumaa ji soxla ndox ñu def ko ci sëriñ Mandumbe Mbàkke moo jaayante woon ak Cheikh Modou mustafa Mbàkke te wut ay setterne ngir ñi ciy denc ndox moomu ñuy rooti ci déegi kon ku jàppale woon Cheikh Modou Moustapha Mbàkke la jàppale googu mu jàppale woon Cheikh Modou Moustapha Mbàkke bindkatub sëriñ Touba Seexul Xadim bi sëriñ Moor Kayre nekk ku mu bokkaloon ëttub ku baax ki sëriñ seexul xaddim seede na ci jëmm jooju di sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke ndax ma ngay wax ca way yim jagleel kii di sëriñ ma ndumbe mbàkke di ko wax ne ñun de buñ demee ba ñemee liggéey ci jumaa ji wala buñ demee ba am yaakaar ci jumaa ji yow jëmm ji di sëriñ ma ndumbe mbàkke yow yaa tax ñu lu way yu ko sëriñ moor kayre way nekkoon bindkatub sëriñ tubaa seexul xaddim ngir jëf jum doon jëf ci ginnaaw si amul moustapha mbàkke ngiruk seede seex ahmadu ndumbe ngi di bañ ko ragal mës la janoog cheikh mu wax ko mbir te matul gëm na magam fas na lu seex digle woon da koy rafetal wuuf na ginnaaw seex goneem yi wattu na leen boole na leen te dingaam ji xel yi na dal moo ñu ñemeñ loo tabax bi moo ki goneem sang bu dee dooñu jaam ya teew war a dal yal na fanam wii di xaaf gu mat ba tegal lii bu amee teew gi baax ci néeg bi nu dal kaddu yooyu sëriñ Mor Kayre seede ci sëriñ Mandumbe Mbàkke kaddu yu mel noonu itam la Cheikh Moussa Ka seede ci sëriñ Mandumbe Mbàkke di wax ne lu masaa bay itam Cheikh Modou Moustapha Mbàkke la koy jébbal ginnaaw bu fi sëriñ Touba Seexul Xaddim bàyyi ko kon ku jàppale woon Cheikh Modou Moustapha la moom sëriñ Mandumbe Mbàkke ba tax na ñi m bokkaloon ëtt bi saa su ne koy seede Moustapha Mbacke na ma ngi cay seede pëstéef bu sëriñ ma ndumbe àndoon ak moom ñu teewlu way yuñ jukkee ci wolofal bi Cheikh Moussa Ka doon defal mu Modou Moustapha Mbacke te tudd ci sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbacke jëwriñu saadix ba ca saam wa huwa saahibul maqaam deefu ko jot yowmal qiyaam Ahmadou Ndumbel baari jébbal na mbay ma Moustapha walam yafal bi man jafa moo sopp bàyyi Moustapha maa ci lool nag la sax ba nim génnee àdduna ci atum 1933 ndax laata jumaa ji egg sëriñ Mandumbe Mbàkke dem na sëriñ Mandumbe Mbàkke itam ku jaxasoo woon nag mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim la ndax bi sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim di dem ci géej gi bari na ci im ci mag ñi ñoo xam ne sëriñ Mandumbe Mbàkke la leen dénkoon ndax kat la waxoon mooy képp kuy tarbiya na nga dem ci loxoy sëriñ Mandumbe Mbàkke ba tax na am na ci mag ñoo xam ne ni xamuñu woon kenn ku dul sëriñ Mandumbe Mbàkke ñu ràññee ci sëriñ Mouhamadou Jigal sëriñ Mouhamadou Jigal mi sax sëriñ Mandumbe Mbàkke moo ko gërëm sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ci tukki bi la wéyal ngërëmul sëriñ Mandumbe Mbàkke lool ku ñuy wax sëriñ Daawuda Jóob jat mi ndax sëriñ Daawuda Jóob jat mi sax bis bi mu jotee lii di ngërëm ci kër ma gëy ndaw la delluwaatoon sëriñ tubaa seexul xaddim wooluwaat ko ba mu ñëw di ko wax ne na jógee ci loxoy sëriñ Mandumbe ngir mën a dem ci dëkk bu ñuy wax daaru xarañ jóob ngir nekk fa kon ñooñu ñu taxoo ak sëriñ Mandumbe Mbàkke lañ kii di la woon wólle réem la woon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru kasaalika maam Cheikh mbàkke boroom dërëm ak ngërëm cheikh modou moustapha mbàkke wóolle réew sëriñ mandumbe mbàkke la woon ba tax na sëriñ mandumbe mbàkke sax ku ko jàppalee la woon ci jumaa ji sëriñ siré loo sànnoosi xaritub sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke la woon cheikh mahamadul faadal mbàkke wóolle réew sëriñ mandumbe mbàkke la woon ba tax na doomu sëriñ mandumbe mbàkke bii di sëriñ moodu xabbaan sax kii di cheikh mahamadul faadal mbàkke tudde na ko doom boole ko nag dëkkub sëriñ mandumbe boobu di saam sëriñ fàllu mbàkke daana fa dem ay yooni yoon di seeti kii di sëriñ mandumbe mbàkke sëriñ xaamar sàmm bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ fas wi jële sëriñ tubaa seexul xaddim dëkk boobu di lugaloo yóbbu ko ci sànnoosi sëriñ amar sàmb mooy ki ko moomoon fas woowu sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ amar sàmb la sëriñ wa jëbbalaat ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ ma ndumbe mbàkke la ko joxoon kon fas wi jële luga sëriñ tubaa seexul xaddim yóbbu ko sànnoosi ci loxoy sëriñ ma ndumbe mbàkke la mujj sëriñ amar sàmb moom itam ba tey ci njaareem sëriñ ma ndumbe sëriñ Balla Faali Jeng xaritu sëriñ Mandumbe Mbàkke la woon ñaare néew na lool nga dégg histoire sëriñ Balla Faali Jeng te turu sëriñ Mandumbe Mbàkke du ci ñëw jumaay njaareem ji biñ koy liggéey am na benn bis gouverneur bi ñëwoon fa jëloon lii di plan bi jumaay njaareem ji yóbbu ko keroog sëriñ Balla Faali Jeng moo wax kii di sëriñ Mandumbe Mbàkke di ko wax ne Mandumbe nañ dem Ndar wala Ndakaaru fuñ man di fekk gouverneur buñ demee jëlaat lii di plan bi njaareem bi indiwaat ko lu tax mu ñëw njaareem nangu si ko keroog ñoom ñaar ñoo ànd dem xattiwaat plan jumaay njaareem ji indiwaat ko teg ko ci loxo loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddi kon ñoom ñaar ay kóllëre lañ lii ma la wax ni soo demee ci marché bi seex musaa ka way kii di sëriñ balla faali jeng ma ngi ko fay nettali sëriñ ndaam abdourahmaan lo sëriñ tubaa seexul xaddi moo leen boole woon di ko wax ne ahmadu ndumbe yaag sëriñ ndaam abdourahmaan lo mii da fasante leen ay kóllëre ndax ay kër kët yéen a koy dend ci àjjana lool sax moom moo waral fi ñu leen denc ci yi ñoo ko dend sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke tuddee na doom kii di sëriñ ndaam abdourahmaan lo moo nekkoon sax ñetteelu xalifa sëriñ ma ndumbe Mandumbe Mbàkke bi sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo jotee lii di ngërëm itim daara jëm yoroon sëriñ Mandumbe Mbàkke mooy ko ko fa wuutu woon bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di dem ci géej gi itim dundub sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo sëriñ Mandumbe Mbàkke la ko sasoon kon ñoom ñaar ñu jaxasoo lañ woon noonu mu jaxasoo woon nag mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim boole koo nag lu mu am jébbal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bi Seex Moodu Mustafaa Mbàkke toogee xalifa mu fab léppam jébbal Seex Moodu Mustafaa Mbàkke noonu tim ni la nekke woon ku tabe moom sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke ba daawul yor dara mu taa ci loxo bi ngir moom kat jor na ne lu mu am kan moroomu jaamam yi ñooy ñi ko moom tebe googu tax na kii di cheikh Moussa Ka bokkoon ci bindkatu sëriñ tubaa seexul xaddimi mi ngi koy seede di wax ne sëriñ Mandumbe Mbàkke mayandoo na ko ñetti fas ak genn giléem goo xam ne nii dañ koo sëf ba mu diis te sëriñ Mandumbe Mbàkke tebe googu mu tabe woon xàmmee wu ci woon baadoola ak doomi buur mooy ku masaa ñëw ci moom soxla mu jox la ko cheikh Moussa Ka mi ngi wax ne li sëriñ Mandumbe Mbàkke defal ay doomu aadama ci wàllu ndimbal moom mënu ko lim ñu teew lu kàddu yi ko cheikh Moussa Ka way ngir tabe gu sëriñ Mandumbe Mbàkke tabe woon kon may ci réew mi naari góor diggante penkoo ki kajoor baadoola baata doomi buur mënee su ko lim jafe na may na ma yetti fasi naar may ma tukkal gu sëf ba dër sëriñ ma ma jënde ko ñaar ku wet di laajal na may ma fa kër ma xari njaay sàkkum juróom maa ko fa jaay may na ma jàmbuñ naan ma njaay bayti la dem liberté na billaahi moo ma njëkk a may téeméer te jëndewu ko way te du liggéey ba mu di ma fay sàkkum njëriñ ma fëgg na ginnaaw tabe googu mu tabe woon ba ñim séqal ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul seede ko sëriñ ma ndumbe mbàkke itam ci ay jëfam daana tukki nag lii di ci biir réew mi mbooleem dëkk bu fi nekk itam sëñ ma ndumbe mbàkke dem na fa ngir nemmeeku lii di taalibe yi bitim réew itam jot naa dem ci réew mi di Mali ak Côte d'Ivoire ngir seeti taalibe yi sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke bari na nag ay tur yu ñuy wooye ay turandoom am na turandoom yu ñuy wooye saam am na ay turandoom yu ñuy wooye mandumbe am na ay turandoom yu ñuy wooye sëriñ moodu am na ay turandoom yu ñuy wooye sëriñ cheikh am na ay turandoom yu ñuy wooye cheikh moodu am na ay turandoom yu ñuy wooye maam cheikh ndax ki ko cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddim tudde maam cheikh lañ koy woowee turandoom yi ñuy wooye sëriñ cheikh itim ki ko sëriñ moodu xàbbaan tudde itim sëriñ cheikh lañ koy woowee doomu soxna ndumbe ñan ja ak kii di sëriñ seydu mbàkke ñu gënoon koo xam ci sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke mi ngi génn jamono ci feebar bu ko tëral bisub àllarba fukki fan ak ñaar ci weer wi di weeru kor yi ci atum 1351 ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak ñaar ci weer wi di weeru kor yi ci atum 1351 ci gàddaay gi dëppoo muy mercredi 8 février 1933 mercredi 8 février 1933 ci dëkk bi mu sancoon di déndéy ñu jële ko déndéy ci àllarba jooju indi ko nag ci Touba fanaanal ko ci kër boppam di kër gisatam bii nekk di kër sëriñ Ibra Xujja Mbàkke kër googu lañ ko fanaanal booy dugg ci kër gi fii ci marché Ocass am na jàkka ju fi nekk jàkka jooju sax lool moo tax ñu tabax ko fi ndax foofu lañ fanaanoloon sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke bët set di alxemes fukki fan ak ñett ci weer wi di weeru korité ci atum 1351 ci gàddaay gi alxemes fukki fan ak ñett ci weer wi di weeru korité ci atum 1351 dëppoo woon ak muy jeudi 9 février 1933 jeudi 9 février 1933 ñu jébbal sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke ci armeer yu mag yi ca wetu xaritam ba sëriñ Ndaam Abdourahmane Abdourahmane Lo ci teewaayu xalifa général bi fi nekkoon di sëriñ Modou Moustapha Mbàkke ak mbooleem njabootuk sëriñ Touba Seexul Xaddim gi fi nekkoon ak mag ñi fi nekkoon sëriñ bu sa mooy ki ko taxaw Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke seede lu am solo ci ginnaawam wax ne ku ko jàppale woon ci liggéey baa ngi nii dem na sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke ay xalifaam nag nii la tëdd ci atum 1933 ba atum 1933 ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Mbàkke moo nekkoon ab taawam moo ko njëkk a wuutu ci ak xilaafaam ci atum 1933 ba atum 1933 nekk premier xalifa sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke moom nag yàggul ci jal bi ay weer rek la toog lii di xalifa sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke ñaareelu xalifa sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke mooy sëriñ moodu xabbaan mbàkke moo toog ci atum 1933 ba le 15 mai 1975 ñetteelu xalifa sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke mooy sëriñ ndaam abdourahmaan mbàkke mooy ki mu tudde sëriñ ndaam abdourahmaan lo moo toog ci le 15 mai 1975 ba le 15 novembre 2012 ñeenteelu xalifa sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke mooy sëriñ abibu mbàkke ma ndumbe moo toog xalifa ci le 15 novembre 2012 ba ci at mi di l'an 2013 moom tim yàggul dara ci xilaaf waa waajuróom woowu li ñu tudde nag doomu sëriñ ma ndumbe yu góor yi jeex tàkk ci kaw suuf sët yi tàmbalee wuutu seen maam ji sët bi njëkk wuutu maamam mooy sëriñ ibrahima mbàkke xujja doomu sëriñ moodu xabbaan mbàkke la moo toog xalifa ci atum 2013 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñu boroom yàggal aw taxawaayam ci mbooleem njabootu sëriñ ahmadu ndumbe mbàkke yi te suñ boroom guddal aw fanam te sàmm ko te aar ko ak mboolem ñim séqal sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke moo xam sët la taalibe la ba ci képp ku sopp sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke nag am na bis buñ koy fàttaliku ndax ci at mii di atum lan 2011 la sëriñ Moustapha Saliou jël kër gi sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke moomoon ci njaareem te sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke laajoon ko njabootu sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke te njabootu sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke joxoon ko ko ginnaaw sëriñ Moustapha Saliou jël na lim amoon ci kër googu jébbalaat ko njabootu sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke yi di sàkku ci ñoom itam ñu fay jàng lii di xasida ngir jagleel ko jëmm jooju di sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke sët yi nag demoon nañ ci xalifa général des Mourides jaarale ko ci sëtub sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke bi mu ànd ak ay rakkam muy sëriñ Cheikh Bintu Mbàkke bu sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke xalifa général de Mourides sëriñ Cheikh Sidil Moxtaar Mbàkke joxoon na leen bis ngir ñu koy màggal ñoom sëtti sëriñ Mandumbe yooyu ci njaareem bis bi mooy fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru rajab saa su ñu koy màggal ci kër gi sëriñ Moustapha Saliou delloowaatoon njabootu sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke kon bis boobu lañuy ñuy fàttaliku sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke ñuy ñaan ci dooley liggéeykatu sëriñ tubaa Seexul Xaddiim ba ka jàppale woon Cheikh Modou Moustapha Mbàkke ci liggéeyub jumaa ji ka sëriñ tubaa daa wooye Ahmadou Ndumbe Mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leer